ñu ngi ci mel ni bàyyi rek ñu ñaan yàlla bu baax yàlla yàlla seen fan jotaay bi yëpp ñu amal yàlla yàlla ñu bàyyi xel jotaay yi nga xam ne lu ñuy jotaay yi ku ko xamul wallaay la xam ku ko xam ne ko respecté bu baax a baax ndax dafa nekk jotaay boo xam ne du jóge kenn tudd yàlla nga leen ci te mënoo tudd ñu leen ci àddina ndax yàlla mooy maye ci guddi yonent bi ngay jaar kon ñu jàng Faatiha am na yoo xam ne solo Faatiha waaye ci ëpp yàlla na Muhammad yéen a war a ji ko tax a jëm muy Sëriñ Ba di borom Mbàkke Kajoor moom mi nga xam ne moom la Sëriñ Ba ko tegoo te kanam te kanam àggee bu ñëw mu jàllale yoon maa loolu mag ngoom ko xam ne nëkk na ci tey yoon mooy lu ma Sëriñ Ba maa ko la bay mu ne man la tax yéen ñu teg ko te ku ñëw mën laa jàllale loolu mbir la waaw waaw ba ma ko leer la ma jéem nañ bàyyi ko fa teg mu teg ko kon yàlla na yàlla defal jàmm te du ñu ñëpp dañ leen rafet amul muy amul ci yàlla man yow léegi dama bàyyi ma doon liggéey bàyyi ndax ñun ñëpp gën la yeneen bi rek mooy gàll. Serigne Touba laa jàngee ñu gën a yeneen ci ci ay maay jàngee kenn ak keneen jàngee waaye loolu ñu ngi kanam yeneen ci bi dox nañ ko liggéey waaye yàlla ko ci dërëm bi. kon jàll Fatiha ba pare naa ko laatu Fatiha yéen a leen ko yéen a wàññi suñu baar yàlla محمد سرا وجرا بالبرايا سمتي غدا لنا الاسلام والكفر الصابين من كل سما يخرج يقتل مثل المدام سرا وجهرا بالبرايا سمتي فكسب سيدنا محمد يبان كون المستوى رئيسا لكل من قد هدي نوروزا خلقة فوق كل رقبة منه استغارة كنا من قبل محمد الميزان ولم يأتي إمامة وعبدا لا يأتي سنبا سيدنا محمد محمد مثاله لم يأتي إمامة وعبدا لا يأتي ثبت أن ربنا ginnaaw Seydina Muhammad ay Masak Baaram maam yi dana ak Cheikh Mbacke dañ ma moor maa ngi lay jéggalu te nuyu ma yal na sama woyofal yan ci barki Seydil Awwalina Muhammadun Muhammadun Muhammadun

Yeah. قل من جناه خبرا Allah أولى دهور حكم بينها sünden fatı fettinin gelsen eyler ma fa ma ma kafa mentişa ve kalbi

صحبيهم الجمهور نعم الجمهور من أخلص من دين قلبي بالورى ربي بما يصنع قد خلق النجاة بجاه أفضل من لله قد نجاه وصدري يومئذ نورا صافعا ملأ tolong jangan njaarne tool bay waaja booy duma am waaju mel Serigne Touba ni seetaan sama tool di booy Serigne Touba jot leetar bi daa dina leetar bi moo gënal gënal ne wol leen ma Cheikh Modou Fekeye Cheikh Modou Fekeye ñëw Serigne Touba ne ko ñaan na laa leen di yebal luy murit luy bàyyi faal dem leen tool Maodo bisas keroog mbay ba yéeme na daa mel na yàlla keroog daa mel na nekk ca bopp wa yóbbu dagale jant bi ba dangay gis janaaw luy naaw ba mu yàgg ni ndër daanu ngir tàngaay Cheikh Madou Bégué ñëw fekk Maodo fi mu toog mu naan ko Maodo dawal ay Maodo yaa seetaan Maodo dawal Maodo leen mu naan ko Maodo dawal Maodo ne du ngeen bàyyi seen koy waxee damay yàlla ba nga naan ma jawal day sa sas sama ru bëggee du mag dof Sëriñ Tuuba amulum dof muy jaayoo yàlla doomu aadama su ma ne laa tawal la dof moo ko teg Maodo ne ko foo ko de mu ne ku li nga defal yàlla boo mënul ne aloo yàlla mu ne la aloo Maodo jumaa ndax yaa fa daaj ba mu ko soxlaa Louga yaa fa daj ba mu ko soxlaa Ndakaaru yaa fa daj te bu nit ñi jullee timis kenn nga tëj sax sa mbooloo di sax xamee yonente bi il faut la nga ni nga ilayka ihaada bi loolu mu dal sama kon Maodo tawal loolu xam nga saa waay woon ko dëkk mu ne woon leen ma monsieur Allé Mbaye monsieur Allé Mbaye ñëw Mawlana al ashjaada bi Mawla taxaw tuur ñaari rakkaam ya kàbbar allahu akbar xëcc aayam fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaara yursilu samaa alaykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniina wa yaj'alakum jannaatin wa yaj'alakum anhaara fa aaya ba ni tax bind gën na ca nay beneen dal ca càmm juróom mi lañ jëkk bi taw ba daal dara ba kiram gàncax gi bët bàyyi faa yee teg ba ca bopp xam nga lañ doon bàyyi jaa biluma maw jaa biluma déggal la bàyyi mën sol la jaa biluma Diego الملك يا من جل مرمني يرحم جميعا ولا يمجد maa ngi doon li sànq benn xasida boo xam ne buy wax wallahi da ngay xool wax bi da koy toujours ay waxam da koy def jamono bu sakkan ci saali maanaam du du lekk ba du lekk moom kese bàyyi yëpp parce que day wax benn waxam bu am solo mu naan bu bëggee jiwu ak nit ñi da ngay def loo am nga bokkoo nit ñi ci lu nit ñi am nga bàyyi nit moo tax bi may liir toujours danaan day wax ci waxam buy def rek daf koy def noonu boo xam ne noonu moom jamono bu sati sar ñëpp dañuy dugg waaw ñaan du wax moom kese dañ boole ñëpp kon nag kooku noonu bu ñu ko amee dañuy sant yàlla moo tax sunu mag ñi ak sunu kilifa yi ak sunu sëriñ yal na yàlla gàttal na si naam sallallahu alayhi wa sallam dañoo xaw a sëñ nag moo tax ñu ngi